léegi nag comme man vidéo yi may def amaluma benn njëriñ à part bëgg yéen au moins génn ci mais booy dimbali nit lap day fi fekk doo lay boroom voilà donc euh, ma leen di ne dëkk bu ñu mënulee aar ay xale mënuñu aar ay jigéen nit ñi bon xol yées lu baax dafa lu baax dafa am lu baax dafa ma a am dañuy liggéey bëggante surtout bëggante yéen da ngeen bon dafa bari ñu bon ñu nekk seen biir amul leen yërmande da ngeen bañante ndax tey boo leen bëggante woon li day ni ay xale yi ndaw ñu leen di toroxal ay jigéen da ngeen doon am yërmande mais yéen bëggante woo leen dangeen ngeen bañante te ay nit yu bañante mënuñu bokk di xeex duñu am ndam président Ousmane Sonko fi mu toog pendant des mois sa vie elle est en chaque jour ngeen di woy Sonko boo leen moytu da ko fay jël cadavre ngeen dem suuli ji ko ndax lan xeexalu ko ñu nekk ci biti ñu ngi lijjante seen des dañuy yuuxu sonko sonko sonko de sonko sonko sonko sonko sonko ba objectif bu objectif premier objectif mooy lan moo tax ngay wut ni nekk sa président ak lan nga mënal sa bopp mooy Sonko fi mu nekk na li ñu dara dara dara dara dara ñun nag ñun au ñu xeex déedéet ñu ngi yuux di wëy di fecc loolu du leen ci génne dégg ngeen te comme yeen bëggoo leen seen bopp parce que bëggoo leen seen bopp ñu ngi juutal seeni xale kay juutal

amoo leen don de fidélité amoo leen don de ngor ngor sax ci don la bokk yéen amoo leen don lenn loo xamante ne mun na tax ngeen génn ci sous développement mooy yàlla balaa mu lay dimbale day fekk nga jëfee ko ba pare te yéen jëfee leen ka yéen ñi des Sénégal ñenn ñi ña koy jëfee am na ñeneen ñu toog fële di leen xëcc vers le baax léegi nag la war a def mooy ku nekk xoolaat boppam loolu rek a leen dese ndax yéen a ngi ànd yéen ñëpp ku ci nekk bu mu nee écrasé moromam dem da koy def ku nekk bu mu nee écrasé moromam dem da koy def kuñ ci jox téeméer mu dem kuñ ci jox ñaar dërëm mu dem kuñ ci jox juróomi dërëm mu dem kuñ ci jox fukk mu jaay moromam ku doon yuuxu ba Macky Sall fobos ko jox ko mu dem léegi est-ce que dëkk bi dëkku nit la. C'est une question qu'on doit se poser. léegi nag comme yàlla def na la ma am bëriwul man ci sutur law mun naa dund xëy ba dee ah, ma xëy mun naa dund ba dee te du ma ñaan du ma lekk ndax yàlla may na ma ko jëfale naa ko yàlla mun naa jaay karoot am naa jom jam ba ma am jël ci rocc na ci wut lu leen lu leen neex pour sédd leen ca jomba ngeen ni déedéet jomba doo leen ci sédd seen bopp léegi nag comme doo leen ci sédd seen bopp man a maa nekk koo xamante ne fulla mun na ma dab nag te bu ma dabee kenn ëpp ma fulla ñuul ñaaw ñàkk fayda duma ko associé bu mu bu ku mu neex nag mun na désabonné c'est pas très très grave voilà bu dee dund gaar mi rek ah, man koy dund bes bu ne da ngeen yello Macky Sall da ngeen yello Macky Sall la ndaxte li len Macky Sall yene moom ngeen yene sen bop au fait te ku fi toog di yuuxu tamit buñ ko tëjee ci kasso bi ña ngay xeexal ñooy toog fële di reetaan ñaata nit ño nek ci kasso bi di périr ñun ño waron toog ñun dañu waroon nek en deuil sax ñu fi won nek

ngeen nangu di top ci ay amadou ba pastef bi nga xamantene tekki wul dara te du mos tekki dara man mako wax tekki wul gat te du mos tekki dara parce que goor guy toog ni ñulum di arnaka ay jigen pour survivre mënu leen yobbu fenn niti dañuy tok cotiser jàppale leen ñi dem voter cotiser di dimbalé nit ñi ci mëna ubisen dédé do doo leen ubbi seen bët xol do leen xamoo leen fa ngeen wara diriger seen bop

ñiy juutal xalé yi am 13 ans am otage tok di len defal émission motax nit day juutal xalé bu am 13 ans comme mbay gar bu ñewé tok fi ne wa dëkk bi amuñu xel ah ñëwaat tok di len waar ci l'islam ngeen top ci ginaawam naan da ngeen di jaam moom mo len di jang ni ngeen wara jaamo yalla bo len leen ba ñuy juutal xalé yi am 13 ans ñoy tok ci télévision bi di len wax ni ñu wara jaamu yalla c'est que yeen li monde bi yépp galandé ko yéen ci gëna a mais nak bétuma parce que ba ngeen gissé ay parasites je sais que c'est le mot qui vous fait très mal lal ba bool ba duus ba ah Père Noël ak kële nekk ak pas Alma. nga ne lo leen ben fonction fi France mosoo gis nit kuy jaamu parasite mosoo gis nit kuy top ci ginaaw parasite nga dem États-Unis amul kenn kuy topp ci ginnaaw parasite nga ñëw vingt cinquième pays le plus pauvre au monde ñu leen di jàngal lu ñu war a dundee mooy ay parasite mooy ay vers de terre moo leen di jàngal yéen ni ñu waree dundee ci monde bi ñenn ñi di xool parasite lal ba bool ba duus ba accordé ko mu am vingt trente quarante ba ci quatre vingt jabar ëmbal ba dëkk bi fees jigéen yi nangoo jël seen taat yi ŋàppi ko pour ay parasite di leen ëmbal bu ñu paree di jooy kan moo war a dundal doom yi am ngeen problème yéen rek a am problème léegi nag ngeen xool ñu am jom ñu mel ni ñun di xëy di liggéey di ñëw ngeen ne ñooñu daf lañu effectivement dëkk bi boo doon nit il faut nga doon parasite lal ba bool ba duus ba ah nga toog mën a dugg ci maaynu ñiy liggéey ñu rocci lañu am si seen biir poche jox la nga dundal sa njaboot wacc seen njaboot ñuy dee xiif dëkk bi pour ñu considérer la il faut nga doon parasite lal ba bool ba duus ba am fukki jabar ne ñeneen ñi ña ngeen accouché yépp yónnee leen ma ko ma ubbi leen daara ñuy dem di yelwaan xale yi am trois ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans ba 14 ans 15 ans ci mbedd bi loolu mu nekk premier ñàkk jom pour ma dundal sama jeeg yi nekk ci biir kër gi loolu ci xeetu ñàkk jom bu gën a rëy ci àdduna la am mais boo ñëwee ba ci Sénégal loolu du ci ñàkk jom Lolo, ci grade de supériorité la am parce que ñoo ñoo nek être supérieur Sénégal Sénégal mo nek deuk bo pour être être supérieur il faut arriver à être un parasite L'alba bol ba douce ba mun dugg ci mayu nit sol ngandum maamu garaam mbubb ne yalla nee ñepp duñu ne parasite ka de nee ñu ñooñu seen nday ak seen baay dañoo liggéey mooy ndeyu bayu parasitaire baayu parasite yi ñoo gën a liggéey ñun ñi nga xam dañuy xëy di liggéey di fay même ay dom ay nit professeur yu gën a xarañ ñuy jàngal suñu doom yi pour ñu réussir tekk ci biir société bi ñu ne parasite bi nga xam lal ba bool ba duus ba amul benn fonction boo ko joxoon doomu gerte sax mënu ko saxal mu jur boo ko joxoon doomu tàndar mu mënu ko saxal mu jur ñu ne kooku mu nekk l'être supérieur léegi nag comme man yàlla bi ma fàkk nii ñi muy wax être supérieur mooy ñu dul njaaloo te bokk naa ci catégorie gu dul njaaloo ñu ñuy wax letre supérieur mooy ñuy xëy di ñaq di jëriñu ci ñun yàlla bu ñuy jaamu de parce que yéen yàlla bi ngeen di jaamu moom beneen yàlla la yàlla boo xam te ne góor goo xam te ne lal ba bool ba duus ba di xaar ay xale yam 3 ans 4 ans 5 ans dem yelwaan ñoo jox ko mu lekk yéen yàlla boobu ngeen jaam yéen yàlla boobu noonu beneen loi la leen accordé laal bi nga xam dañu ne ñu dëgg bi nañ ko def ci kaw tiroir bi teg fen bii defar yéen fen bii defar ngeen dundal moo tax Marème Faye Sall defar mbay mbay mbay xawma nuñ koy waxatee mbay gaar ah nga xam ne dafa juutal xale bu am 13 ans. sodomiser ko sodomiser Vous ne dites garmi waruñu wax sénégalais yépp sodomiseur la nañu jël sodomiser bi rectifier ko ne garmi du mom mo sodomiser dem jël comme abréviation la ñu dem jël benen nit bu existé wul ñu garmi bi ne kooku nga xam tane existé l'homme invisible mon mo sodomiser xalé bi non Sénégal ay ngeen l'homme invisible moo sodomisé xale mais pas Garmi l'homme visible <laughs> yéen yéen a la ci dëkk yi nekk nee nañu xale bi ñu sodomisé l'homme invisible moo ko sodomisé mais pas Garmi visible mbay Garmi visible moom sodomisé mais l'homme invisible mon moo ko sodomisé nous créons un homme invisible ci une télévision visible nous ne non ka ko si télévision si visible bi mais il est invisible mon moo sodomiser xale 13 ans da ngeen wër ci prison yi nekk Sénégal yëpp amul kenn koo xamante ne ah na tur boobu bi ndax lan a nëbb dëgg bi parce que

à cause des nit yoo xamante ne dañoo bëgg a jël dëgg bi dugal ko ci biir tiroir bi léegi sonkoo ngi ci cas Sonko ngi ci loxo Macky Marème Faye Sall Macky Sall léegi yéen seen cerveau yi ngeen bëgg ko jël encore dénkaat ko Macky Sall man sama cerveau duma ko dénk Macky Sall même bu jëlulee mbay gaar mi ne ko ràppati ko ci kaso bi man dëgg boobu noonu ne mbay gaar mi moo juutal xale ba am 13 ans man fa laay arrêté wu ba polisu Sénégal dem jàpp mbay gaar mi tant arrêté wul mbay garni Say saay bu ma posté sama page live nak nako naa dem topoto sama doom beulé nga xamante momu gëna soxla foog na né il a elle a plus besoin de moi que vous parce que yeen bu la ne doomu gerté boko saxalé am garapu gerté yeen préférer ngeen dem ñaani ji gerté que di saxal doomu gerté buñ la nee benn doomu tàndarma boo leen ko saxalee am garabu tàndarma préféré ngeen dem ñaani ji tàndarma ko saxal tàndarma buñ leen nee ne benn doomu baobab moom mooy joxe garabu baobab préféré ngeen dem ñaani ji buy ko di saxal garabu baobab yéen seen xel yi laxas nañ ko raxas raxas ba nga xamante ne boo leen def campagne de reboisement ay garab yoo xamante ne duñ leen jox fruit amulul leen benn njëriñ lañ leen di tegal campagne de reboisement mu mel ni tubaab bi dafa formaté seen cerveau yi pour que yéen même boo leen di jëmbat da ngeen di jëmbat loo xamante ne bu saxee du leen jox ngeen di ngeen lekk. maire yi ngeen fii fal yëpp mu nekk waa wàllu Yewwi APR maire yi nekk senegal yëpp est ouest nord sud. président Ousmane Sonko moom dama koy exonore ndax Casamance am na lépp. mais tey ñaata xale ñooy dem école Dakar bu ñu demee duñu am lu ñu lekk dañuy demee biir bu xiif ndax maman ak papa amuñu lu ñu leen toggalee midi léegi xale yooyu noonu bu ñu jëloon rek benn benn pépin wu papaay boo ko saxalee mu jox la garabu papaay en six mois mu jox laa jox papaay xale yëpp waroon mën a lekk am vitamine yu doy déedéet seen ndey saay bu ñu xëyee ñu ngi ci puukare yu ñàkk fayda Sen pas ñi ci bu fayda wala bu ñu parce que yeen amoo don de fidélité Gourou africain 50 don de fidélité ils sont infidèles par excellence L'ol sa parce que mën wax ni sont infidèles sauf que c'est pire parce que tu bi sax dina am lu mu desel pour mais yeen sen cerveau yi fi la nek

nañu depuis 2017 ba di di bi c'est pas très grave bima commencé pédophile pédophilie, xamné nek sama page ni pédophile commencé di left ben par ben yépp di left ben par ben di left ben par de di left par 3000 pédophile <laughs> dëkk bi dafa feebar votre pays est malade laal naa fi Bart y a pas eu beaucoup de désabonnés mais bi ma commencé laal pédophilie ñuy tëddee xale yi jigéen xale yu ndaw yi boo fi laalee góor jigéen sa garaaw man góor jigéen sax je n'ai rien contre góor jigéen ñi ndax magum jëng jëmm bu choisir juutal xale man ça c'est pas un problème bu choisir juutal moromu góoram c'est pas un problème mais man luma ma mënta supporter moy magum jëm bu fekk xalé de xamné te défendre bopam diko ko diko sodomiser pour son propre plaisir lolu man c'est hors de moi-même te tant que yéen a wacc ci sen territoire sénégalaise dites-vous bien man mam mako wax leeru yalla du mos a wàcc Sénégal dëkk bu ñuy juutalee ay xale yu am 13 ans te ki leen di juutal continue di dund ci dëkk bi comme si rien n'était wër na yàlla loo mën mënti ñaan ci àdduna doo leen mos am barke yàlla barke doo leen ko mos a am barke day jaar nii ngeen jaar na le koñ bu ñuy juutalee xale bu am 13 ans ñépp croiser les bras di seetaan te kenn waxul koñ boobu noonu ci ndool la ñuy dëkk ci ñaan lu ñuy lekk lañuy dëkk ndax ñooñoo waroon défendre xale bi am 13 ans télévision bi yàlla teg muy jël xale yi juutal xale yi am góor yi juutal xale yi am treize mu leen di jox parole ñuy libeere seen parole di étouffer xale yi ñu am treize ans télévision boobu lu mu yàgg yàgg yàgg day tëj lu mu yàgg yàgg yàgg dina am sentence su yàlla bu rëy buy wàcc ci TFM bi xooma nag naa ko fekkee wala duma ko fekkee te yàlla dafa def lu baax. mooy dafa bàyyi doomu seytaane yëpp dajale leen ci TFM bi ñu ëmbal xale yu ndaw yi ñuy violer xale yu ndaw yi pédophile yi ñuy juutal xale yi xale yi ñoom ñëpp la jël teg leen ci kaw télé ci biir télévision TFM bi en attendant seen sentence di bu leen di toroxal yéen waa TFM yàlla bu leen di toroxal seen télévision boobu noonu du ko mën a gérer di ngeen toog maam moo ko wax xaw ma ndax dinaa ko fekkeem duma ko fekkee ñi nga xale yi ngeen di juutal di leen tëddee di leen violer di ngeen toog ba seen image génn ci réseaux sociaux yi génn ci monde bi di ngeen gis kilifa yu toog di xaru ci kanamu sénégalais yépp ndax gàcce moo tax Marème Faye gisagoo dara xam nga sa doom toog na ci pale bi di baaraam taatam ba foto bi génn vidéo bi génn vous allez voir pire d'accord kooku sa xale la yaramam la jël di ko baaraam sa dom tok na ci palais du tux yamba photo yi guen ci internet bi mais liy plus vous avancez moins tant que defaraatoo leen sen toogaay yalla da leen di gën di weer di len gën di weer man nak vous n'avez plus besoin de nous tax ñun yedd lañ ci man defar lañ ci man suñu espoir ci président Ousmane Sonko lañ ko mais ci fi mu ak Macky Sall ni mu tegee bakkenam ci pouvoir bi ñu rep ba mu ne chaque président Ousmane sunk teg ko ci prison pendant des mois xamuñu lu muy lekk xamuñu lu muy naan xamuñu lu ñu ci yaram xamuñu lan chaque jour qui passe rêve boobu mu ngi évaporé mu ngi évaporé wu chaque jour ngeen toog fii di wéy di fecc Sonko nama naa la. rêve bangi, évacuer ce qui reste à faire la responsabilité revient à tous les sénégalais qui sont sur le territoire sénégalais ñun ñi nek ci diaspora bi ñu ngi lekk ñu ngi nan am nañu liggéey permis vélo trottinette mooy lépp lu yàlla may tubaab bi yàlla may nañu ko ñun kon yàlla wàccoonoo ñun yéen nag li ci des c'est dans votre camp yéen ñi nekk sur le terrain mënuñu leen takkal jabar ba pare ëmbalal leen ko de yëpp mu yónnee bi ñu yónnee rek doyoon na waroon na leen yokk jom ngeen jóg xeex seen ak ak seen yelleef élection 2024 ci seen loxo la aaju président Ousmane Sonko wax na ko nee na candidature am ci yéen la dépendre dépendre ci dépendre ci Macky Sall dépendre ci kenn te bu ñu ne yéen électeurs yi nekk Sénégal bu leen kenn nax yéen ëpp téeméer yoon ñu nekk ci diaspora bi li comme yéen ñu ëpp téeméer yoon yéen yéen suñu jom bu nekkee benn seen bos war na nekk ñaar fukk ndax yéen ñu ëpp yéenay dund ci ndóol bi yéenay toog boo leen añee doo leen reer yéen a am problème ñun amuñu problème ñun dañ leen di jàppale dina bu fekkee ne yéen mënoo leen xàmmee ñi leen di jàppale diglu ñi leen di jàppale pour que ngeen mën cee génn ngeen nangu topp ci ginnaaw ay politiciens yi ñëw di di di yéeg ci seen main ah pour mën a profito ci yéen pour tekki c'est à vous de choisir foog ni Amadou Ba bi nan ñi nek ci diaspora bi dañ di yakal ak ñi nek Pastef ñi nan, ñi nek la activité dañ leen di yakal kan ci ñom moo mës a jël autobus pour ay nit dem voter amul kenn ku ko def ci ñom ñoom gigi élection yi passé dañu jël ay bus pour ay nit dem voter Depute, amne nyon ante nyon ek ki nyon sa, nyon nyon takh nyon nyon falo. Men nyon, ba nyon teme bakal, ben iti teme vote len papare, pou vou dir koman aktivisti denyon gore. Nyon, bougou nyon, bougou nyon, sou syen yo platform pou remersiye aktivisti. Mdego, ken ne ki nyon pou remersiye aktivisti? Dede, nyon tenyon teme ki televizyon bi, akapare, vitwaro aktivisti.

yéen ñu ndóol ñi avancé woon ngeen yàgg na ndax sëriñ bi lambar lambari bi muy lambar lambari ci ginnaaw Macky Sall daf cee am intérêt am na ci passeport diplomatique am na ci xaalis am na ci oto am na ci kër mais yéen baadoola yi yi lambar lambari ci ginnaaw Macky la yéen amoo leen ci kër amoo leen ci oto amoo leen ci passeport diplomatique seen doom yaa ngi taxawaale ci mbedd bi maman Mariama leen nuyu bu baax a baax. kon y a un problème léegi nag comme yéen ci kër amoo leen ci oto yéen a ngi boo leen xëyee boo leen añee doo leen reer ngeen war ensemble bàyyi ñi nga xamante ne ñoo bu méttee ba méttee sëriñ bi Macky lay lay les riches entre les riches mais le seul problème les pauvres ne sont pas solidaires entre eux. yéen dañ leen jox paaka ngeen di jamante en toujours Jacob Malaysia bu baax a baax yéen da ngeen bañante seen biir li nag comme da ngeen bañante ngeen di reyante ñoom ñu continuer di rawale seen xaalis di ci dund ah am ci vie bu neex la vie c'est yàlla na ah, tegu fi kenn la mu munut yàlla bi ñu sàkk bii nii teguñu fi kenn lu munut topp leen di jaamu ay parasites. monde bi day avancé yeen do len avancer. sax ndax tortue len tortue mo len gëna a ci dox yeen jël buntu kus da ngeen di continuer jël parce que dëkk yi jël amul kenn ku ciy topp ci parasite ci a leen bu baax a baax léegi Il ngeen continuer di ci page bi

maam buy tëddee ay sëtam te kenn ñemewu ko boole ndax kilifa ci dëkk bi boo demee ba say doomu doom nga leen di woo ne leen kaay làmb sama taat bi pour moom xaalis pour ma may leen xaalis c'est qu'il y a un problème léegi nee ngeen ëpp na paa boobu kenn warul wax ne day dafa doon tëddee ay sëtam d'accord léegi benn par benn laa koy def paa bi nga xam ne day tëddee ay sëtam te mooy toog ci puus puus te président bu ñëw Sénégal topp na ci ginnaawam paa bi ñu mos ko teg kilifa bu ma nee day tëddee ay sëtam ba jox ma témoignage sëtam yi mu doon tëddee j'étais sous le choc Sénégal laa mee de mais famille bi dañ koy suturaal ngeen nangu comme man sama doom ma nangu muy tëddee ak maamam bu góor bu jur papam wala bu jur yaayam ci biir kër gi. bu góor gu koy njëkk def amul sama bay amul bayu sama jëkkër dama koy ray mais yéen vous acceptez de voir ça dans votre pays te jeune wu leen ku wax da ngeen koy bañ tay da ngeen ma bañ de da ngeen ma bañ bañ bañ da ngeen ma bañ pourquoi mu commencé di laal pédophilie parce que dama laal cœuru problème bi am ci famille yëpp parce que dama laal li ma wax amna xalé yu di ragal xalé di di def sen témoignage ci souf lolou di ragal da ragal secret de famille ñu commencé ko diffuser mais il faut qu'on diffuse secret de famille et que le pédophile yi ci famille ñu ñaf sen ci bi ñaata di découvrir ñu enlever ah, violer ñaata ñaata par at lañuy enlever sodomiser du Sénégal chaque jour peut-être au moment où je vous parle am xale bu ñu enlevé sodomisé ko rey ko lan moo ñu sodomisé ko rey ko sûrement ki ka violé ci bir famille bi lay doon wala dëkkandoo lay doon wala kilifa ci dëkk bi xale bi xàmmee ko muy bañ xale bi wax muy bañ ñu jàpp ko da koy rey période élection ñu naan waa xale yu bari enlevé nañ leen ah xale yu bëri ñu ngi leen di enlever ñu ngi leen di trouver ñu roy leen sacrifice du sacrifice da ngeen dëkk pédophilie politiciens yu bëri dañuy jaar ci ginnaaw xalé yi bu ñu paree naan deret bi pour ñu am puissance ay katu deretu xalé lañ si seen dëkk la xewé mu tax période élection xalé yooyu la ñuy gën di rechercher seen doom yi yëpp nekk en danger. xale bu am bu nekk ci mbedd bi ñun ñoo dàq yónni xale ne ko demal ci boutique ba jëndal ma suukar ñun ñoo dàq jë yónni xale ne ko demal sa kër nga dem jëlil ma yëre yam ma xooluñu âge xale boobu ci circuit boobu noonu bu taseex ku nekk ci kër gi koo xam ne violeur la mu dugal ko xëcc ko ci loxo violé ko ba pare rey ko yéen a ngi koy dund bés bu nekk ñaata yaay ñooy jooy tey seen doom jusqu'à présent ma leen di wax. kenn xamul nu mu toll amul xale bu góor amul xale bu jigéen mais amul kenn koy wax yooyu nag boo ko gisee ngay dem ba ngay bañ waa dëkk bi leen di jéppi parce que danga naan ñi bëgguñu seen bopp di comme bëggu leen seen seen bopp ñun suñu doom yi ñu am dañ continuer aar leen wacc leen ba bés xëy na yéen ñi naan mbay gaar mi du katu xale bés bu juutalee seen doom Woba bu leen woo ne ko ah pourtant mam la nga don wax kaay waxal ñu du waxal kenn kuma wo damay xorom c'est-à-dire si vous ne vous battez pas contre ce mec-là kuma wo dans un mois deux mois ne ma mam kaay waxal ma damay xorom damay jaar fu bon parce que ni muy metté sen dom non lay metté ci doomu keneen pédophile boko jappé ci ben fii dangay insister ba ñu ñef ndeyam ci kaso bi pour que bu mu ko defaat beneen xale mais pédophile bu ñëwee nga naan waa demal wuti ji preuve preuve ngeen di xaar pédophile ci dëkku tubaab bi bu ñu nee diw moo violé dañu ne chaax jàpp ko ci kaso bi ba pare def recherche balaa ñu koy waccaat muy violé yeneen nit ñun nag dañuy formate cerveau wuti ji keneen ñëw teg ma ne Marème Faye Sall la

dañu tas faram la won dañu tas pour vous dire que ña demone di négocier si bopam pour ñu mëna jël jafe yi affaire yi teg ko ci suuf ñooñu kiy juutal xalé bi ño yem voilà mëna comprendre sax nga juutal xalé nga yónnu ay nit yu baax sax ñu dem négocier pour affaire bi ñu teg ko ci suuf mais mom dafa juutal xalé dem wowi ci ay juutaleeru xalé ne leen kay leen négocier pour que man xalé bi mu juutal ñu mën koo dugal ci suuf neub ko. léegi loolu boo leen ko mënulee xeex te yéen a ngi libre ci biti am ay preuve mille personnes nekk ci prison bi di périr mënoo leen ko xeex ngeen toog fi di woy di fecc ngeen di xaar kan ñëw fajal leen seen soxla ji nga yàlla bu ñëwee pour faj soxla yéen ñu croisé woon les bras ah yéen lay ñëkk a dóor. bala muy yegg sax pour fay pour ray nak encore criminel moy la sentence sera rude entre ñi féké té defuñu dara ak ñi nga xam te ñoo def vous êtes vous êtes responsable responsabilité partagée là parce que qui ne dit rien consent li xew ci dëkk bi ku waxul dara yaax ñëpp a yem Sonko nak fi mu nekk Sonko woyaayoo xamoo woyaayee ak Sonko risé génnewu

dëmm lu muy bañ ku yuuxu turam dëmm lu muy bañ lumière te yéen li dëmm di bañ yëpp da koo favoriser ci biir bi mooy doo leen yuuxu dëmm yi da leen di suturaal lëndëm lëndëm boobu noonu ngeen di wut créer pour dëmm bi mun passage moo tax vingt et quelques personnes. mu ñëw toog nee na moom day waaj xaru nee na moom nit la moom rek a nekk nit ci dëkk bi effectivement moom rek a nekk nit ci dëkk bi parce que rey na vingt et quelques nit perte Sénégal baayam ba demoon enquêté ci xaalisu Macky Sall bi tégaloo leen ndeyam nee ma benn ci nga village u Adji Sarr da ngeen waroon taal ndeyam traumatisé waa village bi def leen pression ba ñu dem li ba dem def pression si seen doom.

ñom Hélène Françoise dañuy dem fofu ay kër mama wax yooyu dañuy dem di len yobul xaliss parce que village bi légui ñom ñom dëmm yi dañ fay dem di vénéré parce que ñom dëmm bi gëna mag muy Adji Sarr fa la joggé nek na si dayes ci ñom ñom dañuy dem fofu nonu ah di jaamu wa village bi di len wonné ne yeen da ngeen ñu wara jappalé pour ngeen soutenir Adji Sarr léegi yéen ngeen tok bu doon yeen dëkk yi bu doon yeen wax bi waxatuñ ko. da de jékki ñu ne village ba dañuy mais Macky lu mu def yëpp fi mu ko defee ak nu ko defee yéen ah, en douceur oui dañuy xaar justice xaar leen justice dëkk justice xaar justice di dans votre mère. doo leen a gis dërëmu justice dëkk bi justice ngeen xaar di justice en attendant di xaar justice. man maa ngi dem vacances lijjante sama bopp dox ci dëkk bi xam na yéen bëggoo leen seen bopp mais ba paree ah moom de day jaay carotte moom de day jaay chou pommé moom de day lii d'accord léegi en attendant yéen a ngi périr dans votre merde ñu ngi juutal seen doom yi ngeen di ñaan di ñepp di leen sol xaalis ku ñëw ne leen Sonko la àndal rek ngeen ne waa moom mooy waaja bu mënoo leen xàmmee. pour ci pure merde ak ñan si vous ne pouvez pas vous ne mun reconnaître main gauche main droite main gauche main droite ku ko mun ta reconnaître mooy doo nit dëmm mais sauf que ñun ñoo jox force dëmm ci ngeen pouvez trois pom na ba ca Bourgie

c'est pour le développement de de des blancs yow yokkoo suñu xeet defoo progrès suñu xeet yow mati trois bom yow ñoom Bourgie yi nga xamante ne ak euh, Bill Gates yi nga xamante ne ñoom ñoo la jox pour euh, ni koy waxte ndox boobu noonu puup wëta ba nga stérile ngeen daal ma de yow ñoom ngay jaamu yow mati trois bom di nga sa bi nga am.

1m80. Sénégalais, Bouy mesurer 1m50, 1m65 yooyu noonu dafa xolat bopam te mu nek ci nouvelle génération da war a xoolaat ça veut dire que Bill Gates jaar na fa ça veut dire que dañ la OGM ba nga ba ba dangaa dañ la OGM ba nga yàqu yow Mati Trois Pommes yow Bill Gates da la OGM ba nga yàqu léegi Bill Gates OGM la ba nga yàqu ñi nga xam à dañuy am bëgg empêcher société bi ñu juraat ñu pour progrès pour ñu bañ def pour ñu bañ a yàq pour ñu bañ am lu ñuy am yëpp jox ko tubaab bi choses. ñu fi lu bon yow ne la jalousie nga comme man j'ai pas pu dépasser les un mètre cinquante neuf j'ai pas pu avoir d'enfant gens damay def en sorte que jappalé de tamit pour ñu def yenen jigen ñi y am a société bi mati trois dem dafa elle est égrie. tu es méchante c'est pas tout le monde hein, mais tu es méchante parce que aigri bi nek sa xol extérioriser tu as envie d'être quelqu'un. Et tu ne peux pas être quelqu'un parce que tu n'assumes pas ce que tu es. Fille France man dama assumer ne damay jaay carotte yow da nga war a assumer ne dangay mindaanu di raxas duus ak sa Hélène Françoise assumer ne day liggéey ci personne âgée en même temps di babysitting mooy déjà il faut que accepte accepter li ngeen doon ba pare première personnalité mais yéen da ngeen refuser seen personnalité da ngeen da ngeen da ngeen refoulé seen personne pour yootu leneen loo leen doonoon léegi ci yootu li ngeen doonu noonu moo tax dangeen dem ngeen def selfie ak Bourgi ngeen ne loo programme Afrique ñu jox leen xaalis xaalis ba leen jëriñ dara de parce que yow mati trois pom lañ la fay jox boo deewee tey jàmbur yee koy lekk ndax yow woccoo fi dara. lang fay def yeb dama fogn ne yenn yi boko tolo o li nga jël redresser sa bop jël sa bop yóbbu ko ci jaamu yalla dedet yow da nga dem ba da nga jippi yalla yow mati trois pom parce que da nga fogn ne li la dal yeb yalla mo la ko tek te teew li la dal yeb ya ko tek sa bop li la dal Europe yeb ya ko tek sa bop li la dal senegal yeb ya ko tek sa bop mbindaanu ba ngay def di dem di postuler mbindaanu pour raxas duus sa centrale nucléaire bi du yàlla moo jàpp sa loxo ne la dema raxas yi duus bi yow yaa jóg ba xam ne ne sa kàttan sa yaram bu ndaw sa xel bu ndaw raxas duus la mën nga dem raxas yi duus ba pare nga ne loolu doo ko assumer nga ne dee il faut que dans le vingt dans le vingt cinquième pays le plus pauvre au monde nga ñëw incarner fa ne yow journaliste nga yàlla baax na sax parce que yàlla ku ñu bëgg la parce que yàlla bu la mosoon bàyyi nga génn ci chaîne télévision française def fa émission di nga commencé né ya mom ci chaîne ba mais yalla dafa def que né mayu la capacité opportunité pour nga dem ci chaîne française yi pour wane sa bop ya nga dugg nak di génn bëgg nekk quelqu'un bëgg refoulé bëgg def lépp mais mënoo nekk mënul nekk mënul nekk parce que sa xol moo bon nga dem ba danga iñaane ñi dëkk Sénégal yow mati trois pom danga iñaane sa bopp iñaane ñi nekk Sénégal iñaane ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp moo tax yéen jël ndaare li ji nga boo paree ba ànd ak bourge nag ba teg seen table ba pare yàlla mooy ñëw tegal ndayu table bi yow ak franc-maçon ya nekk ca ginnaaw ak ña nekk Sénégal ak ña am royaume ak ña jënd kër Europe ak nga boo leen defaree ba pare ba jàll ba pare la yàlla di ñëw bulli bool bi dara du fa desati moo tax fa mu nekk nii man live dama koy teg fële toog toppatoo sama doom toog di rey saay bu di dóor yàlla dóoree benn rek ma def benn pouce sama page ñaar benn ñaari pouce ñett ñetti pouce parce que sentence baa ngi ñëw xam bu ñu la nee répentissez yaatal leen seen xol am leen yërmande seen morom ah gen leen pour vous seen bopp mais ngeen xeex pour ñeneen ñi ngeen ne déedéet ñun duñu nous préféré nañu yelwaan nañ nañ ci ginnaaw ba yàlla génneel ñu fi yàlla du leen génneel jaam du leen génneel satan yéen yéenay virer satan par la prière par vos actes par vos actions mais yàlla du ñëw satan, leen satan diable bi nekk tant que yéen jógoo leen ngeen ne épine bi te ngeen koy génnee seen bopp yàlla du ko génnee de parce que yàlla may na leen xel pour ngeen mën a discerner lu bon ak lu baax léegi li xel boobu leen yàlla may bu leen ko duggee ci tiroir ngeen xaar kii nekk ci kaw parce que yenn ci gàtt xel la bokk moom mi leen may xel ne la mënal nga defal sa bopp nga ne ko déedéet man je suis tellement paresseuse que je préfère que yow nga wàcc ci wàccee ci suuf ñoo def soxla bi da ngeen di xëy le matin sax di xaar yàlla jox leen ngeen lekk. toog leen ngeen xaar dégg ngeen ñun en attendant ñun ñi nga xam ne yàlla mun nañu servir xel bi ñu yàlla jox ñu ngi dem lijjante suñuy soxla